salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel ci site internet yi nga xamante ni ñoo fi nekk yëpp euh, tunga ne du teew ñu nataal kii mooy yaayu ki nga xamante ni moo di ummi euh, yaay euh, tey sa yaakaar naa ni sa xar kanam ku xam ni kontaante la gis ci yow doom ju baax si ñun mhm. mooy yaayam man maa topp ci moom mhm. muy doom ju baax si ñun ku yoru mhm. ku dal ku ñu déggal ñu jooy ñu jooy dëgërlu jooy am bàyyi ko mm-hmm. jooy mm-hmm. bi tey du bésu jooy mm-hmm. ñu jooy mbég jooyu mbégte la di jooyu mbégte la ko yàlla lafal cat xale bi macha allah lépp lu mu kii cat moo ko yóbbee mais macha allah xëy na yàlla lii la dogaloon bu doon sunu sago day ànd ak ñaari tànkam mais accident moo ko def lii. Mhm. lii la yàlla dogaloon loolu la yaayam di jooy da koo ñeewantal. Mhm. mais nag kontaan na ci xale bi kontaan na ci jëkkëram. Mhm. yal na yàlla guddal seen fan. waaw yaayam daal kontaan na ci moom daal bu baax ñun ñi rek yaayam. kontaan nañ ci moom. ba dëgg yàlla boo gisee muy jooy. dafa bëgg rek. dafa bëgg rek moo tax muy jooy. wax ji bari woon lool euh, ci bés bi ñi naan dina am ñi naan du am tey suñu borom euh, tëj na gémmiñu waxkat yi nga xamante ni ñoo doon wax loolu yëpp. waaw boos moom dëggal na moom li mu doon wax. parce que nit ñi naan du am ay da koy foyee da koo da yóbbu lu ne mhm. mais boos mu dëgg yàlla mhm. gor la moom it mhm. dëggal na li mu doon wax xale bi tamit téye na boppam moom it dëggal li mu doon wax ba yàlla tey def lii tey jii muy dëgg yàlla na yàlla def lan lay doon yaay booy may ko ba mu ba mu lii ba pare parce ñun ummi amuñu leen loo xamante ne mën ko mën nañ koo wax si moom moom kii yaayam la man a yaayam ñoo bokk ndey ak baay ak kii ak sunu mala la fële Oumy dafa nekk xale boo xam te ne dafa réglé toog ci penku ndeyam demul dikkul TikTok bi xëy na la ko ñëpp xamee waaye noonu la respecté boppam noonu la fonkee boppam toog ci wetu yaayam ba yàlla may ko jëkkër kon lu ñu deful ci moom dañ koo fàtte Oumy li ñu ko mën a defal dinañ ko ko defal xam nga lu tax ni mu mel moo tax tey bu ñu amoon jamaa dañ ko koy wàcceel parce que dafa toog réglé gis nga Oumy moom ak ñëpp a yem borom tànk yi ñeewu leen ñeewul borom ñaari tànk ummi lii borom ñaari tànk di def lu ko raw ummi da koy def ummi day fóot ummi day bale ummi day raxas ummi day togg te bu la toggalee nga kontaan kon lu borom ñaari tànk di def loolu la ummi di def xëy na yàlla na moo dogalee nii te lii ndog-ndog la te dañ koy sante yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax ndax xëy na mënoon naa gën a métti lii mais ñu ngi koy sante yàlla bu baax. yaay booy nga ñuy wax si sa doom a ñu kontaan bu baax a baax ummi xale bu baax la ummi lu mu am lii teeñ bi la yan bi ñëwagul dafa nekk xale nekk jigéen yërëm yaayam ummi bu lettee bugg si bugg bugg si tubay bugg si dara lu mu man la koy jox lu mu defar man la koy jox li muy liggéey lépp man la koy jox soo gisee tey jii tabaxul étage yàlla ak man la maa ngi koy ñaanal sëyam bi lu mu ci bëgg yàlla na ko borom bi defal boo sagal na ko boos sagal na ko bu baax a baax macha allah bañalu ko dara boos def na fi lépp ba dara manqué wu maa koy sant di ko gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla nañu ci am njaboot bu sut seen jot di barke seen ñaam diggante mag boos eh, tey rumeur yi bari woon na tey bi nga gis eh, reménage yu tey lan nga ci mën a wax lan diggante umeeg boos sant rek sant yàlla lu yàlla bindoon la ci aras mënul woon a ñàkk lii yàlla daf koo bind ci aras ba pare mënuma si dara si ma ko bañoo li dama siy ñaaw rek waaw commencement bi moom nanguwuma woon sax ndax dama ne woon da koy fowee waaw da jàppoon da koo bëgg waaw bëgg umbi samay dëgg si moom koy conseil ci néegu sëy néegu sëyam mu def comme ndeyam rek parce que man sëy laa xam bu sëyee bu ma def man dina fa toog ñu gis aadanaar waaw ma def ko defal ko ko waaw waa asalaamaaleykum man nag média yi mësuma cee mësuma cee wax waaye comme dañ ma laaj il faut ma wax li ma xam ndax umi mii ñuy takk tey nii papaam ñoo bokk benn baay yaayam man maa ko wàcce ki topp ci ummi mën nañ ko tuddee maada waaye macha allah lu rafet rek lañ ciy wax ndax yaayam sëy na sëy bu rafet ci suñu kër macha allah musul fay musul musul fase kon lii mérite la du chance mérite la daal bu dëgg yàlla ndax lii moo ko liggéey ci kër euh, bàyyi ummi tey jii macha allah ñu ngi koy ñaanal sëy bi yàlla na barkeel man yii ñemewu ko sax Touba laa dëkk mais mais di il faut ñu wax ko daal waaw buñ ko waxul rek ñu ko ndax dañoo fekkee waaw ba ma am ci turandoo man macha allah kon yàlla na yàlla barkeelal sëy bi mu mu mu barkeel lool taamu li sëy yi yàlla gën a taamu ci sëy yi waaw koy jërëjëf merci beaucoup. ay waay may leen ay waay ay waay daa eh aw leen jaaw wóoru la ñëw leen takkal xale bi leen takkal bi yow ma ne ko bu leen takkal bi leen takkal bi yow yére bi yére bi def ko ko leen yére xale bi bu leen takkal yére bi jël daan jël daan bàyyi moom ni ma ko def wuyu ma ñu dem ne dugg ci taxi ñu dem ne toogal toogal toogal ah? eh, ñu dem ah.